mu ne baabun lii buntu lay jàngale mujibaatul xusli ana yan mbir mooy waral sangu naka noonu dina leeralal biral la ana lan mooy faratay sangu naka noonu dina la biral ana lan mooy sunay sangu naka noonu dina la biral ana lan mooy lu sangu te jàngoon nga ci ginnaaw ñu ne ana luy farata ana lan mooy sunna ana luy ngeneel te indi woon nañ ko ci darsu nga doon jàng ca ginnaaw ginnaaw kon nag bunt wi gannaaw ba nga xamee borom ashabul masalik noppi na ci taaratul mooy njàpp ci ci la la doon jàngal gannaaw ba mu noppee ci njàpp nag ak lu aju ci njàpp mu ngi sóobu ne ci taaratul maaya al kubra mooy sangu sangu mooy laab bu mag yi eh, mooy laab bu ndaw ndaw laab laab mag eh, ana lan mooy waral laab bu mag wi le min janabatin aw xaydin aw nifaasin te loolu jiital ne ci waral sangu وتمنى باب اللي بنتو ولا جنجال موجبات الخزي وعليكم السلام يوارد سانغو وفرايدي أك فرتي سانغو وسنني أك سنني سانغو وفضائله أنجنيل سانغو معنى بني وموجبات القصد عند الناس ست فقطع الحيض والنفاس ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو في يقظة wa min bi xashfatin fi fi ayima farjin wa xaslu maytin aw man aslama wante boo demee ci al axdari jàngoon nga ci liy waral sangu jàngoon nga ci liy waral sangu ñu la ñett rek mooy waral sangu wante gis nga ne lii moo tax ñu ne jàng dafa am solo ndaxte nooy gën a jàngee sa xam-xam di gën a yaatu bam la bam la waxee ne liy waral sangu dafa waxoon ne ñetti mbir la mu tënk ko ci aljanaaba wal xaydi wa nifaas yi dong mu ne janaaba ne ñaari xaaj la kii na daf ko tafsil moom mu indi ne juróom-benn mooy waral sangu e ci ñett yi nga xam ne mooy war a sangu e te mu doon janaaba moom daf kaa def ñaari xaaj mu ne e, génnee ma niyu dafay waral sangu fàddu bopp kamra ci pay war a sangu te loolu la ci Abdurahman al Axdari tudde woon aljanaaba muy ñaar xanaa ak xaydu wa nifaas muy ñeent xanaa ana juróom beeg juróom benneel wa mu yokkal la ci xam-xam ne la xam-xam nii la rek tey da ngay jàng yokk ci xam-xam ëllëg nga jàngaat yokku ci xam-xam sang ak ku génn àddina ak koo xam ne yéefar la woon tuub loolu moo ci yokku waxti min wa mujibaatul xuj yi waral sangu nga ne kaa maanaam sabab yi nga xam ne mooy waral sangu muy mbir yi nga xam ne dafay waral sangu ah, mukallaf ah, sangu te jàngoon nga ñu ne la mukallaf mooy ko xam ne ñaari charte moo daje ci moom yana ngeen loolu lu ma ko baamtu nu mu bëri ak li ma ko jàngalee mu bëri moo tax jàng leen da ngeen a jël seen darsu di jàng noonu di dem rek wallahi bàyyiwu leen xel seen masala yi waaye noonu la darsu moom du wut jàng tër rek mooy tax xam ko yàgg naa la mu kalal ñaari charte ren moo daje ci moom muy al aqil al baalix léegi yàgg naa la koy jàngal te mboolem darsu moo yegg si ji mu kalal rek dinaa la ko leeralal li dafa waroon nekk naan waaye ndox sa bopp dootoo ko fàtt mukk moo tax mbir yi nga xam ne dafay waral sangu mukallaf yi mukallaf mooy koo xam ne ñaari sart daje ci moom mooy al aqilu al baalix ñaari sart yi rek yu ci nag léeg ñu juum ñu ne mukallaf mooy koo xam ne dafa am juddo dafa sax karaw juddo ale too nag mooy ko am fukki at ak juróom-ñett nag nangam ak naan loolu la boo demee ci Cheikh euh, borom matn Ibn Ashir noonu la indi woon wante ñaari sart yi mooy sart yi mukallaf mooy al aqil al mooy ku am xel ak ku mesure góor la wala jigéen la ah mbir yoy na di dajé ci mom di waral sangu mina sittatun mo tay indanas fa nit ña bu ñe indanas lim nam mu ci indanas moy mana indal ulama fa borom xam-xam ya sittun juroom ben kana li boko jangé nga am ah, man kat jaxla na dit man al axdari ma jangone yajibu al quslu ala thalathati ashya tay ñu nam ma sittun sittatun juroom ben juroom ben la ñu la ah, waru lay jaxal dit ndax nit dafay dafay dafa bëgg ak yokku. te ñaar ba tamit nim ko tafsilé Cheikh Abdourahman al aghdari mom dafa am num mu ne fal janaba du ne al janaba wal hayd wa nifas min ñettu yema wara ma war mu ne la fal janaba tu ala qismali qismaani al mani ila axiri wa maqib xasafa ila axiri moo tamit wu mujjibaatu xusli yi waral sangu maana sabab yi waral sangu maana mbir yi nga xam ne dafay waral mukallafi sangu te mukallaf mooy ko am xel mat mukallaf góor wala jigéen inda naasi maana inda al ulama fu borom xam-xam yi mi ne sittun juróom benn la maana sittun juróom benn la ma ne ko acca limal ma mi ne bu si njëkk faqatul xayd mooy dagg dereetu mbadak te jàngoon nga ñu ne alxaydu ki nga xam ne mooy gis ak mbërëg jàngoon nga ko al axdar mu la koy leeral ni jigéen ñi nga xam ne dañuy gis deret mbërëg ak jàngaloo na faslu fil xaydi mu ne jigéen jigéen ñi nga xam ne mooy jigéen ji baaxoo gis mbërëg ak ki tàmbali gis mbërëg moo tamit ne faqatul xaydi dagg deret mbërëg bu fekkee ne koo xam ne jigéen joo xam ne dafa door a gis mbërëg waxoon ne lu ëpp ci mbërëgam fukki fan ak juróom-ñett lay doon bu dogee kooku sangu daf koy war ak jigéen joo xam ne dafa baaxoo gis mbërëg nga naan ah, atteem mooy dafay xool aadaam baaxam ñaata lañ a juróom-benn ñaa juróom-benn bu jeexee sangu war na ko bu fekkee ne waxoon na la juróom-benn dafa jeex dog deret ji daggul mu ah, dafay doole ñett fan. bu ñetti fan yooyu jeexe dara ci daggut mu sangu ci xam ne la ci topp feebar la ah noonu la ko jàngale moo tamit ne faqatul xayda ah, bu ci njëkk mooy dagg ak deretu mbërëg wa ak dagg ak deretu kon bu njëkk ci waral sangu mooy inqitaaxu damil xayda mooy dagg ak deretu bu fekkee jigéen gis na màndargay dog ak deretu mbërëg ci ak fendik piyam wala ci ak ak ah kon bu waa war na ci moom mu sangu donte gannaaw heure la waa donte gannaaw heure la ñaare mooy dagg ak déretu nifaas te doomi euh, jigéen mën naa gi euh, am doom te du génn ak déret am naa loolu tumurank la euh, donte sax moom jigéen wi am na doom te doom ji génn pm wow kong terew na sangu daf koy war ci waxtu woowu la bu fekkee ne dafa génn ànd ak moom deret walla gannaaw ba ma juree ba noppi la deret ji soog a génn ba léegi war na ci ma ak sangu ci euh, euh, rafle ak dog ak deret wa donte bisu jureel wa la am doom mm. ah ji dafay euh, dafay sangu bu fekkee nag deret ji dafa continuer ak moom mm. eh, ba mat juróom-benn fukki fan deret ji jeex sangu war na ko wante bu fekkee ne deret ji dafa dog maanaam dafa am doom mm. am juróomi fan deret ji dog fuy deret ji ñëwaate mën na fukki fan ak juróom na xam ne deret jooju njëkk ga du deretu mbërëg mm. loolu nga jàngoon ci al axdar yi dereti ñaareel ko deretu mbërëg la ndaxte deret mënta dog taxaw fukki fan ak juróom mm. wante bu fekkee ne juróomi fan la deret ji taxaw wala juróom benn fan mm. deret ji ñëwaat mu xam ne deretu nifaas mu jeexagut mu continuer ba mat surtout na yow man mu continuer ak euh, euh, deretam jooju la waxtamina u muujibaatu lqudhi yi waral sangu nga ne ko xam ne indi naas fa borom xam-xam ya surtout juróom benn la bu ci njëkk mooy faqatul aydi mooy dagg ak deretu mbërëg wa nifaas ak dagg ak deretu gisin bu ci njëkk daal mooy inqitaa damil xayd ñaareelu mooy an nifaas mooy dagg ak deretu mbërëg ñetteelu mooy wamin man yi ak man yi xaar yin ba aji génn bi lazzatin ànd ak bànneex moo taaja di ba buñ baaxoo mm. ana ci lan mi ne fii naw min ci nelaw mm. aw fi yàqoso wala ci yéeg mm. wala ci yeew maa ci lu dul ak nelaw ñetteelu ci yi waral sangu daal mooy génnee man yu ci bànneex wuñ baaxoo kon na nga déggee si ne bu fekkee ne man yu lu ko génnee mooy dafa tiit wala dafa jur góor tiit génnee ko wala dafay génn ànd ak métti yooyu waralul ak sangu kon ñetteelu ci war a sang mooy xurujil man yi mooy génn man yi bi lazzatin mu'tada ci bànneex buñ baaxul moo xam ci góor wala ci jigéen ñu ci bari dañu foog ne góor mooy génne man yi jigéen du génne ah naam ñoom ñaar ñëpp dañ koy génne mais ci lu ak sëy ci sababa xool taaru ko soxna si wala ci lu dul loolu wala ak xelaat ci mbiru ak sëy wala ak fo ba loolu génn ah ci man yi ci laa ci lay génnee sarta nañ ci xool wa ak xelaat wa mooy taqoo wa amaan bu fekkee ne donte man yuy génne ci lu ak xool wala xelaat mm. lu feeñ mooy ne waa du war a sangu mooy dafay war a am njàpp dong nag mm. moo xam ci nelaw la wala eh, ci yaqaso ci yeewu mm. waa ci ci yeewu ndaxte loolu mooy ñetteelu yi nga xam ne mooy waral ak sangu yonent bi alayhi salaam daan wax ni eh, innamal maa'u bil maa innamal maa'u xamal ne génne ak man yu minal maay dafay war a ak sangu kon innamal maa'u minal maa'i ñaari maa la wax maa wu njëkk mooy génne ak man yu maa wu ñaari mooy alxuslu mooy sangu ah ndox daal dafay waral ak sangu génne ndox dafay waral ak sangu bi maanaam xurujin man yi ndaxte man yi ndox la rek moo tax képp koo xam ne dafay yeewu ci nelaw fekk ak yéreem wala ci ak lalam mën yi woo xam ne wu tooy la wala wu wow war na ci moom ak sangu doonte sax yëgut ak bànneex wu da aji génn ndaxte yéen wax naa la innamal maa bil maa da waxoon bi maanaa war na ak sangu ci ndox maana génneek ndox maana génneek man yu ah, dafay waral ak sangu képp ku fekk ne ci malaanam man woo xam ne wu wow la wala muy sikk ndax lii mani la wala maji la mm. ah dafay war dafay sangu sangu daf koy war te dafay baamtu julli ga baamtu goo xam ne wujuban la mm. dafay war ci mujjanteeg nelaw yama nelaw woon ak eh, yére ba mm. ci guddi googu wala ci bëccëg ga donte gannaaw weer la wala lu ëpp weer wala lu ko gën a néew ah kon nag képp koo xam ne daal fekk na ci malaana maniyin woo xam ne yaabisan la wala muy sikk sàkk aw huwa maniyin aw masyu kooku boobaa ix dajale dafay sangu net wa aada wujuban hmm. eh, am naa ne koo xam ni eh, dafay sikk sàkk ci lam jot hmm. ci malaanam ndax lii man yi la wala mas yi la wala wad yi la boobaa nag kooku sangu du ko war dafa fekk ci malaanam muy sikk sàkk lii ma fekk sama malaan bi man yi la wala masi la wala wadi la xanaa ñett yëpp daje na ci muy sikk nii man yii la wala masi wala wadi la ñu ne falaa xusla ale sang du ko ci war amaa nag bu fekkee nag donte dafa euh, sikkoon wala dafa sikkoon ndax lii man yii la wala masi la wala lii man yii la wala wadi la kon boobaa la wajabal xuslu foofu moom sang daf koy war nit waxte mi ne wu muy jibaatu xusi yi a sangu nga a kaamina inda naas fa borom xam-xam ya mm. sittun juróom benn la mm. bu ci njëkk mooy faqatul ay di dagg ak déreet mbërëg doona faqatul ay di dagg ak mbërëg mm. dagg ak déreet mbërëg wani fa ak dagg ak déreetu gisin na ñuy bëri na léeg-léeg ñu juum ci firi mi ne fa fa euh, alxaydu mbërëg mbërëg waralu sangu dagg ak déreet mbërëg feeg mbërëg war jeexu kañ sangu waragul waragul ko e ñu ci bëri loolu njuum teg firi la luy waral sang ñu ne alxaydu mbërëg déedéet ak alxaydu mooy dagg ak déreetu mbërëg daa may firi bu gën a jot mu ne wa min maniyin ak maniyu ñetteel waa ngoog mooy salisa uxrojal mani bi lazatin mu'tada bi lazatin baagu baawu maala mooy ànd ak bànneex mu'tada bara buñ baaxu benn génn ak mani fii naw mu nekk ci nelaw aw fi yàqaso wala ci lu du nelaw mooy ci lu du ci lu du yeew ñeenteel wala moom lay wax fii ne wa min maqifa xasafa ak fàddu bopp kamra bopp kamra bu ñu ko waxee mooy euh, awraak góor lañ cay dagg noonu loolu mooy kamra mooy bopp mooy dugg ak bopp kamra fii ay yi maa far bu mu ci pay fii ay yi maa maa googu kooku ci waxam ja zaidal maa ngi dafa yokk rek waaye amul maanaa fii ay yi farjin bu mu ci pay mooy maanaaw maagu maaw zaidal rek moo tamit ne fii ay yi maa farjin bu mu ci du pay pay bu doon pay doomi aadama la am ku ci dof dof lu ba fekk ab bi bàyyi ma wala ak gàtt ne ca àll ba nga sëy ak moom comme que awraam dugg na ci pay warat xoolatuñ pay eh, eh, dugg na dugg na ci pay rat duñ xool naan pay doomi aadama rek mooy war a sangu pay bu wante doona dafay war a sangu waxteno amin maqi bu xasafa ak fàddu bopp kamra fi ay yima farañuñ bu mu ci pay mooy ñeenteel bi ci war a sangu maanaam raabiuha ñeenteel yi war a sangu mooy maqiifu xasafa mooy fàddug bopp kamra koo xam ne baalix aji mësër la mu nekk koo xam ne aji kattan la ah ci mën a ak sëy ah min al qasaba bi maanaam mooy daggu bopp kamra wa ci pays wu doon mooy ay farjin ah donte pays bàyyi ma la wala ku ku génn sax bu fekkee ne daal bopp caméra bi fàdd na ci payu rek na ah amaana dañuy wax ne bu fekkee ne eh, aji fàdd bopp caméra bi góor la mesure na boobaa tamit sangu na bu fekkee ne moom góor la wante mesure maanaam ah, xale la wante toll na fi ñu koy fi ñu koy diglee julli sopp na ci moom ñu diwa ko dem sangu ci wante sangu waru comme que nag mesure amaa jigéen ji nga xam ne fa lañ tàbbil payam euh, zakkar sa bu fekkee mesure na sang war na ko bu fekkee moom it mesure waaye jot na ak sëy moom it dañ bu tollee fu ñu koy digalee ak julli dañ koy sopp nañ ñu digal ko mu dem sangu ji bàyyi xel li may wax wa tamit wa min maqiba xasafa ak fàddug bopp kamra fi ay yimaa farjin bu mu ci pay waaw pays bu mënti doon comme que farju la rek mm. kooku al farju bu mm. fekkee al farju al googu al istiqraam pays bu mënti doon aadamiyun aw xayawaaniyun moo xam bàyyi ma la wala du wut bàyyi mm. wante ki koy fàdd nag mën na nekk baaleex ku mësër bu fekkee gune la te jotuñ koy digal ak julli boobaa nag sangu waru ko bu fekkee ne jot nañ koy digal julli nañ koy sopp nañ ñu digal ko mu dem sangu ji dégg nga wa tamit wamin maqi bu xasaba ak fàddu bopp kamra fi ay ci bu mu ci pay fi ay yimaa farajin bu mu ci pay hmm. juróomeel wa mooy wa xaslul mayit yi hmm. maanaam xaamis wa juróomeel bi ci war a sang mooy almawtu dee hmm. mooy wa xaslul mayit ak sang niw ah maa daal war na sang jullit ah mawtul muslim mooy eh, niwuk jullit maanaam mujibu lu xusli alal aya war na ci ñi sang ko mooy ci ñi ñiy dund mm. ñoom la war ñi sang wante googu fardu kifaaya la ndaxte isa qaama baadum saqata anil baqin bu ko ñenn ñi taxaw wàcc na ñeneen ñi mm. mooy mooy juróomeelu ci war a sangu mm. aw man wala ki nga xam aslama tuub na koo xam ne yéefir la woon tuub ci diine islam mooy juróom benn wa sadis wa min al képp koo xam ne tuub na minal kufaaril baaliqiina bokk ci yéeféer yi nga xam ne ñu mësër lañ wante bu fekkee gune yéeféer la te mësër gut kooku sang waru ko wante bu fekkee dafa bokk ci ñu ñu ñu mësër yi boobaa wajiba ale qudus sang daf koy war ndaxte ndaxte dafa janaabu woon qabla islam te wa in kaan yaxsulu qabla zalik bi ni itiraf ila hadas kon loolu mooy juróom benn yi nga xam ne mooy war a waxte min um mujibul xus yi a sango indi naas fa borom xam-xam ya mm. nga ne ko xam ne sittatun juróom benn la wa mm. ci njëkk faqatul xayda mooy dagg ak deretu mbërëb mm. ñaareel ba moo nifaas ak dagg ak deretu gisin ñetteel boobu min mani ak mani xaarij mbara aji génn bi lasati ànd ak bànneex moo a taajatin ba da buñ baaxoo fii naw min ci nelaw aw fii mooy wa min wa min maqiba asafa wala eh, ñeenteel bu mooy wa min maqiba asafa ak faddu bopp kamra fii ay yi maa farañu bu mu jippee juróomeel wa xas lu mayte ak sang niw mm. ah, juróom benn mooy aw man wala kaan xam ne aslama tum mm. kon nag yooyu mooy yi war a sangu noppi na ci mm. mu ngi soob yow ci faratay sangu te waxoon na la baabu mujibaatil xusli wa faraidihi wa sunani wa fadaili kon nag mu ngi ci faratay sangu ma ama faraidil xusli wa sunani wa fadaili ah, ci lay soobu di leeral maanaam furuudu faratay cangu nga ne ko amina xamsun juróom la noté ko soxoratay sangu waaye juróom la mooy waral sangu maanaam faratay sangu daal juróom la bu ci njëkk mooy anniyatu mooy yéene moo lay wax ne fattan wi yéeneel xuus la sangu sa waaw ah, mooy sang mooy farata wu njëkk maanaam anniyatu mooy yéene yéene ne mooy jublu ci xol wi waaw ah, dina jublu ci xolam wi faratay sangu wala mu jublu ci xolam wi yëkkati am toj wu mag mooy euh, euh, janaaba mooy sangu wala muy yéen jubli ci xolo wi sàkkoo daganal ak julli foofu daal yéen ñett yi dina ci aju fardul xusli aw raful hadas al akbar aw istibaatu sola bu ko tuddee ci làmmiñ fa waase maane loolu dagan na dara nekku ci wante li gën nag mahalluha euh, mooy alqalb mooy xol place mooy xol wante ana fan la yéene ne fa njëlbeen nag sangoom ci lay yéene lu gën na mooy mu tàmbali ci raxasam piyam buy raxas piy wa di raxas sobe sa mu tàmbalee foofu mu yéene foofu foofu la moo tamit ne furutu faratay sangu nga ne kaa mi na xam sun juróom la fatan wi na nga yéene xuslan xuslaka sak sangu ah, ñaaril wa noppi na ci loolu eh, ñaaril wa wa am ak matale kullal jismi bépp jëmu bi ma bil ma wayu moo ne moo taamina bil ma li darura ngir lorug way wante bil ma i ci ndox waaw tamit ñaareelu ci ma ak matale kullel bépp jëmi bil ma ndox kon nag ñaareelu ci faratay sangu mooy taamimu zahiru jasadi mooy euh, matal lu feeñ ci jëmm ji ci ndox wante du ne lu feeñ ci jëmm ji nag biir gémmiñ ci lay bokk wala biir bakkan wa wala biir gët maa bokk ci zahiru jasadi bokk ci bokk ci li feeñ ci jëm wante loolu dafa wute ne abi hanifa moom dafa wax ni baatinul fammi wala anfu wala aynin moom ci la bokk ah ñetteel wa ci faratay sangu mooy waddulukan ak sa bomb moom lay wax naan waddulukan ak sa bomb maana thalitha ñetteel ci faratay sangu mooy dal ko jëmee al jasadi mooy bomb mboolem jëmm ci yëpp chartalu ñett nekk gi nekk moom bomb gi mu nekk ci baatinal kafi mooy foofu ci biiru tënk aati rek loolu sartaal ko wala ñu koy lënk wala muy nekk luñ sartaal ci lënkale ak sotti mooy da ngay sotti di bomba loolu tamit sartaal ko wante dina doy rek gannaaw sotti ak ndox ak tàqale wa dina doy feeg na cëri fendiwul maanaam dina doy moom bomb ga donte sax si biti euh, kaffu gi la la doon bombee yaram bi mu ne loolu dara nekk ko ci baax na wante buy sangu daal moom góor na bàyyi xel mm. yenn barab yi nga xam ne dafa xaw na nëbbatu mm. yenn barab yi nga xam ne bu ko nemmeekuwut amaana ndox du fa yegg këm ras-ras yi jëm mm. mooy attakamiche ak lu mel ne ak euh, jëmmam ji ak lu mel ne ak poqataanam lu mel ne ak ñaari tepp xam ak lu mel ay je njekkeekaayam yi yooyu dafay rasu ak lu mel ne leem-leem ak rukk ba tamit bati oomi yi bu ko bu ko xel ndox mi dafa dugg wante war na ci moom buy sangu ba léegi mu xallil asaabi rijlay ni mooy baaro mi tànk yi xam nga lii ca njàpp la waroon wante ca njàpp luñ soppul wante ci euh, sangu kooku farata la maanaam yajibu taxlilu asaabi rijlayni huna kooku dafa war wante bi xilaafil wudu wutee naa njàpp fa fa mustaab sopp la woon bu fekkee ne dafa jafe moom bomb googu ci lenn ci ak jëmmam ngir gàtt gàtt loxoom yi wala loxo yi dafa dog walla loxo wi sax dafa njaddee ba mënta yegg ci yenn yi masalan ci lu mel noonu boobu ana farata woowu dafay rot ci moom te terewut eh, sangoo dina mat wante moom daal mënta ñàkk mukk na mu matal jëmmu ja ci ak ndox rek loolu lay wax ne ñeenteelu ci farata njàpp mooy waddalu ak sa bomb juróom ñe boobu ci farata sangu مولانا وغلل غلل غلي الشعر كرو معنى تغليل الشعر مو غلل كرو نقول مو شعر جميع جزء مو كرو مولين جم جيب ما خم كرو وحف له ولا خم كرو سق له كم سكين وقم اجي اجي فت له يجب إيه داف كوي خليل melokaanam كان mu tàpp karaw ga ba ndox ma dugg ci di yëngal karaw ga ngir lan ndox ma yegg ca der wa war ci moom nag muy jël yoxoom di ko dugal ci biir ak karaw ga waru ci waaye na fexe daal tàpp ko ak tamit def nii ba ndox ma yegg ca der wa bu fekkee ne dafa létt woon moo xam góor wala jigéen ñu si bëri charia dañu foog ne góor du léttu waaye góor mën naa léttu karawam ndax da yenentu daan na léttu hmm, eh, léeg ñàkk jàngale moo tax ñenn ñu bëri gisee góor di léttu ñu ko iibal wante góor léttu dara nekku ñu naa da yenentu bi daan na ko def wante bu fekkee ne góor wala jigéen daganut muy maanaam duñ ko wax ne ko firi sa létt yi na fexe ne ndox mi yegg ci rek bu fekkee ne létt ya ah dafa tat lool foofu mu firi ko bee ndox mi dafa yegg wala létt wa daf moom jigéen daf kaa léttee ay wëñ yoo xam ne dafa bari lool ba ndox mi dafa yegg foofu mu firi ko foofu mu firi ko moo tamit ne wa qallil qalilal ashaara karaw maanaam ñeenteelu ci farata sangu mooy taxliilu chaar mooy xalil karaw mm-hmm. maanaa chaar jami al karaw mboolem jëmm ja kaana aw kasifan mm-hmm. juróomeel wa faratay sangu mm-hmm. mooy almuwalaat moom lay wax ne wa Ah, kal wudu këm jàppale bi maanaam fu muy jàppoo ba fu muy noppi ah bu mu ko dog dogganti na ko na ko mingal na ko tëfti maanaam juróomeel ba ci faratay sangu mooy almuwaalaatu mooy mingale bi maanaam bi añ waali ba mu mingale diggante cër ya ba fu muy peree sa sangu wa ci benn ak mingale kilo di ak tàqali woo xam ne wu jégg doye wu ñaaw te waxoon ne wu ñaaw mooy mu bàyyi ba cëre fendi ndaxte mingale fii comme njàpp rek ni nga ko jànge woon charte mooy mu fàttaliku ko am kattan ci man koy defee amaana koo xam ne dafa lottu ba jégg doyo wala amit wi fekk cëre wawut mooy cër yu mujj wa fekk fekk mu nekk ci jamono mu attadi la ah, kooku mooy aajis bu fekkee nag eh, cër yi dafa fendi ci jamono joo xam ne mu attadi la eh te eh, mu bàyyi ba cëre fendi kon boobaa tamit dafay commencé at sangu googule bu fekkee ne da sangu bayi ak dënër mooy ab dig moo xam daf ko fàtte wala daf ko bàyyiwul xel mu fàttaloo ko eh, gannaaw ba mu sangoo na gaaw dem raxasi ko ci do de ak yéexee bu fekkee na julli woon ba noppi dafay bantuwaat julli ko bu fekkee daf ko fàttaliku mu topp di ko yéexi naan ah dama xaar ma naan attaay wala ma ngom laan ba ci kanam soog a dem raxas ko ah kon nag boobaa sangu ko dafay yàqu dafay yàqu te loolu lu mel noonu jànga nga ko ci al axdari kon juróomeel ba ci faratay sangu mooy al muwaalaatu mooy méngale moom lay wax ne wa waale ak méngale kal wodoo kam njàpp kon faratay sangu ah juróom yooyu la wala yaa ne furudu farata sangu na xam ne xamsun juróom la bu sa sangu mm-hmm. wa umma ak matale kula jism bépp jëm bil ma ci ndox mm-hmm. waddulu kan ak bomb ñeenteel wàngoog mm-hmm. wa xallil ak xallil shaara karaw eh, eh, ñeenteel wàngoog waddulu kan mooy ñetteel wa wa waale ak mingale juróomeel baagoog kal wudu kam jàpp noppi na ci loolu mu ngi lay eh, soobu na ci ak sunnay sangu mi wa sunna sunnaal nañ moom sangu mu ne al istinshaq mooy sorandiku su ne ñeent la wala juróom am nañu wax loolu wante usi njëkk mooy sorandiku ñaareelu mooy wat wat wat wat tam tamad madu ak galaandiku mooy waxas lu ko ak raxas al yedda yi yoxo lil ko ay ni jëm ba si tikk njara ka saaka naka noon wa masxu eh, masxu sim xëy usnayn mm-hmm. ak masa ñaari bën bëni noppi ya waaw mm-hmm. ah, mooy ñeenteel mu ñeenteelu kon suna yango mm-hmm. kon daal sunay sangu wa ci njëkk mooy al istinsaaq mooy sorandiku te jàngoon nga ñu ne mooy lan fexe ñoo ndox mu dugg ci biir fiiru mooy fexe ko mu génn comme ni nga ko jàngi woon si njàpp ah ñaareelu mooy galaandiku te jàngoon nga ko ñetteelu mooy xaslu ko raxas sa loxo jëm ba njare ah. naka noonu tamit ah, eh, ñeenteelu mooy masaa simaaxul usnayn mooy bën bëni nopp bu ñu a sumaax nag mooy a fuq mooy bën bën woo xam ne a daaxil fi ras dafa dugg ba ca biir bopp wala yi baaliku fi zalika xataa yu loolu la ulama yu firee baat boobu noppi na ci loolu mu lay jàngal eh, ngëneelu ak sangu nee na wa fadlu ngëneelu sangu nga ne ka <coughs> kooku juróom benn la juróom ñaar la da lay indi ko mu ne wa fadlu ngëneelu sangu nga ne ka ah, bino mooy tàmbali bi xaslil xabas ci raxas sobe sa mooy tàmbali ci raxas sobe nga ne ka amina ah, in ndem nekk an an gis mi ci jëmm ji fekkee sobe si nekk na si jëmm ji maanaam daal ngeen sank bu ci njëkk mooy albadu bi isalati najaas mooy tàmbali ci dañal sobe ci payam wala ci lu dul payam ci mbooleem jëmmam bu fekkee nekk na foofu najaasatul mandi mooy sobeeg mani wala lu dul lu dul ak sobeeg mani topp mu dikk na sang raxas ah li nga xam ne mooy cëram yi di aji làpp moo tamit ne wa fadaloo ngeen ñu ne la sangu mi ne albadu mooy tàmbali bi xaslil xabat ci raxas sobe sa mm. in kaan dem nekk na an jismi ci jëm mm. mi ne wasallis ñetteelal ah. mi maanaam ñaareelu ngëneel ci ngëneel sangu ah. mooy wasallis da nga koy taqdim ngir nga jekku firi ba mm. wasallis ñetteelal rasan bopp bopp boo koy raxas da ngay ñetteelu bopp maanaam taslisu xasli raxas mooy ñetteelu raxas bopp ah, ana loolu ni ñu koy defee mooy mooy bi maanaam mooy mu bëbb wacca bopp salaasa maraat ñetti yoon gannaaw ba mu xalilee ak tooy tooy uh, loxo wa ca bopp ba dal di koy bomb nag ànd ak bépp yoon wi muy def rek da koy bombali eh, bu dugalee loxo bi loxo tooy mu xaj defaat ko ba mu tooy ñetti yoon buy tànk ndox nag di sotti nag defaat ko tamit moom ñetti yoon loolu mooy ne uh, tasliisu xasli raas mooy ñetteelu raxas bopp kooku mooy ñaareel ci ngeen sanku ñetteel wa ci ngëneel sang mooy moom danga koy taqdim waxid bennal bennal xasl aaday wuddu yi raxas cëri njàpp yi xam nga jànga ci dara mooy mu jàpp maratan maratan jàpp benn benn mu leen waxid bennal xasl aaday wuddu yi raxas cëri njàpp yi moo tax ñetteel ci ngir njàpp mooy taqdimu aada wudu mooy jiital cëri njàpp ya ca sanguwa ci la des ci jëmm ji yëpp ah li sharafiya maratan maratan mooy ñetteelu ñeenteelu mooy da nga koy taqdim wabta di tàmbali bil ci ndeyjoor ah tàmbali côté ndeyjoor ah topp côté càmmoy soo ko noppee tamit loolu ngëneel la ak tàmbali la gën a kawe njëkk lu gën a suufe mooy tamit wal aali ak lu gën a kawe njëkk lu gën a suufe kon ñeenteel wa ci ngëneelu euh, sangu mooy albidaa muy tàmbali gi muy tàmbali ci ndey jooram njëkk càmmoyam bi maanaam mu jiital yoxo ndey jooram ca kaw loxo càmmoy jiital tànk ndey jooram ca kaw tànk càmmoy ca sangu naka noonu mu tàmbali buy sangu xaaj jëmmam ji tàmbali xaaju mm, mm, ndey joor wa njëkk xaaju càmmoy wa waaw juróom juróomi woon it mooy mu tàmbali la gën a kawe ci jëmm ya njàkk la gën a suufi te la gën a kawe mooy ci kaw njàkk la gën a suufi juróom benneel wa mooy mu niiwal ndox mi ànd ak xarañ ak sangu ga këm ni nga xamee noonu nga ko noonu la ko waxee woon ca laxdariya ah juróom-ñaareel mooy mu wax bismillah mooy juróom-ñaareel mooy juróom te mooy buy tàmbali sangu mu wax bismillah wa tamit wa fadlu ngeneelu sangu nga ne ko ne albadu mooy tàmbali bi xasil xabasi ci raxas sobe in kaan dem nekk na an ci jëmmam wa sallis ñetteelal rasan bopp wa wa bennal bennal xasla aadaay wuddu yi raxas cëri njàpp waxid bennalal xasla aadaay wuddu yi raxas cëri njàpp wabtadi tàmbalil bil ci ndey joor wabtadi tàmbalil al aal la gën a kawe njëkk la gën a suufi wante maa ngi lay jox eh, njëriñ woo xam ne wu am solo maanaam sopp nañ koo xam ne dafa jaxasoo ak soxnaam ci guddi benn yoon xanaa ba ci biir guddi gi rek mu bëgg a jaxasaat ak soxnaam ñu ne sopp nañ mu dem raxas awraam ba noppi soog a dem jaxasaat soxnaam ndaxte raxas gi muy raxas awraam soog a jonjaat ak soxnaam mm. kooku dafay tax cëri sawar wante bu fekkee dafa jonjaat eh, soxnaam te raxasu raxas raxasu awraam a a jonjog moom mm. amaana cëri na mu war a sawaree du ko sawaree mm. wante min baabin istihbaab dafa nekk ci buntu soppeerit wante sopp nañ koo xam ne dafa sëy ak soxnaam mu bëgg a sëyaat ak moom yooni ñaareel mu raxas zakraam gannaaw yoonu njëkk wa ndaxte loolu yuurasu loo àdduwa nashaatan dafay donnaloo cëri ak sawarte naka nen sopp nañ ko yore janaaba góor la jigéen la balaa muy tëdd mu jàpp-jàpp nelaw bu fekkee ne bëgg euh, naa yéexee sangoo jëmba ba solaatu subhi kon balaa muy tëdd na jàpp jàpp nelaw soog a tëdd sëy na soxnaam ci guddi e te jëlu di sangu ci guddi gi dafa bëgg bàyyi ba solaatu subhi mu soog a sangu bu mu tëdd rek na jàpp njàppum li naw mi njàpp ak nelaw ndaxte njàpp googu wudu wal xirs lañ koy tuddee njàpp goo xam dafay kaar loolu cax na ne ala ban njàpp mooy njàpp goo xam ne saw ak euh, dem cabinet laal bopp zakkar mënu koy yàq léeg-léeg euh, ñu cax la cax boobu ana ba njàpp mooy njàpp goo xam ne dem cabinet tuur ndox laal zakkar mënu koy yàq ana ban njàpp mooy njàpp bu ko ne dem kabine tuur ndox laal sa kër a koy njàpp ñaari cax yooyu yëpp dañ koy cax fu ñu la ko caxatee ne bàyyil xel mooy njàpp li naw mi mooy koo xam ne dafa jàpp ngir nelaw njàpp loolu lenn rek moo ko a toj mooy aljimaa mooy sëy ak koo xam ne dafay jàpp eh, njàpp nelaw lil junub ah mu benn benn cax la rek man maa eh, di ko tàqale benn cax woo xam ne lay cax ne la ana ban cax ban njàpp mooy njàpp woo xam ne tuur ndox dem wala laal zakkër mën a koy yàq lu mooy sëy kese bu ñu la ko waxee mooy wudu naw mi lil junub mooy njàpp nelaw ñeel ku yore janaaba léeg-léeg ñu cax la ko cax woo loolu mooy njëriñ yi nga xam ne moom laa tëjee buntu woowu matamine babun ndi ɗum to woye jangel mujibatu yi wara sangu o fara idihi an da sangu o sunnina ak sangu o fada idi an da sangu وموجي بعد القذل هي ورسنغ وعند الناس فبرم قم قمية من الست جرم بينلا وجن جاكم يفقد العيد مو دوغ دوغ دريت مبرك والنفاذ اك دغ دريت غسين نيار الوانغ نيتل مو ومن مني اك مني غار ني بدا جين بلزد اندك بنير مو اتال بدا بن باخو في نوم من جنلو او في يقظ ولا جي ييو نيتل مو ومن مقيب حجب اك فاد بوب كامرا في اي ما فرجين بومو سي بي جرمين وقزل ميت اك سانغ نيو yiw ah, juróom benneel mooy aw man wala kaa xam ne aslama jëbbaloon ci ci lislaam mm. noppi na ci loolu mu ngi lay jàngal euh, faratay sangu mm. mi na furudu farate sang na xaqam sun juróom mm. la bu ci njëkk mooy fattani da nga yéen a xusla xuslaka sag sangu ñaareel mm. mooy wa amma matalel kulla jismi bépp jëme bil maaxi ci ndox mm. ñetteel mooy wa wadluka ak sag bomb ñeenteel mooy wa xalil a ashaar karaw juróomeel mooy wa waxale na nga mingale kal wudu kam njàppare noppi na ci loolu wa sunna sunay sang na ka amina ñeent la ñenn ñi ne juróom la al istinsaaq mooy sorandiku ñaareel mooy wa wa tam wa tamadmadu ak ñetteel mooy waqas ko ak raxas sa yéday ñaari loxo lil ko aani jëm ba si ñaari tëkk njëkk juróomeel ñeenteel mooy kasa nekk noonu euh, ni ka sim xay ni moo taxoon euh, moo fa nekkoon wante comme que dafay daaf dafay moo tax ñu xasal nun ka kasa nekk noonu masxu sim xay u ak masa ñaari euh, nopp ñaari bën bëni ya noppi na ci loolu mu ci ngëneel mi na wa fadlu ngëneeli sangu mm. nga ne ka xam ne juróom benn la bu ci njëkk albadu mooy tàmbali mm. bi xasli xabase ci raxas sobe sa mm. yàgg naa lay wax alxaslu alxuslu daal may seen in kaana bu nekk an jismi ci jëmb ja ñaareel ba mooy wa thallis ñetteel a rasan bopp ñetteel ci ngëneeli sangu mooy waxit bennal xasli aadaay wudu yi raxas jëri njàpp ñeenteelu mooy wab di tàmbali bi yamin ci ndeyjoor juróomeel bi mooy wal aali tàmbali la gën a kawe tamit njëkk la gën a suufe juróom benneel wa mooy eh, niiwal ndox ma ànd ak kereñeeg sang wa juróom wax bismillah ca fa tàmbali maa sang ba te mooy wax mu wax bismillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi dana yàlla may dégg topp dafa ñu ko defal leen alhamdulilah wa axira walhamdulilah min xiin ila leen i